du fait du branding, bon, mais du fait de customiser le stade aux couleurs de nationaux, ici au milieu, c'est un lion comme ça, en rouge, carrément, qui est sur le logo de la fédération qui va faire office de dépôt. Il y aura l'image du stade au sol, et maintenant on va revenir avec les, assises blanches. on sort de là, Non mais on est, et, on est là pour ça. ne pensez pas à nous. À côté, ce qui dans ce projet, hein? c'est les orientations qui ont été par la réglementation FIFA et qui sont respectées. Mm. Et ces orientations-là consistent faire dans des vestiaires comme ça un refreshment room. Refreshment room, on va installer au niveau de ce refreshment room là un tous ces espaces-là pour les sportifs. Quand ils avant d'être convoqués par le coach au niveau ces espaces de concentration, là-bas, ils pourront manger, délirer, faire ce qu'ils veulent. Maintenant, quand ils viendront dans ces espaces-là, là, là c'est les mots à venir, pour la concentration. Un restaurant pour eux, un, un, média buffet qui leur est destiné pour la presse. Où est là une presse on est là. On est là. On est là. Oui, oui, oui. À côté, à côté. Mais vous notez, hein La presse est là. La presse est là. Au les conditions seront mobilisées pour que le travail se fasse. Tout à fait, tout à fait. Vous aurez votre bar, vous aurez votre restaurant. Et de là-bas, maintenant, eux, ils ont accès à ces niveaux-là. Là, on a des studios TV dans le projet. Ça aussi, c'est une innovation. On va, les, on va les équiper et installer au point que demain, si la RTS doit couvrir un direct ici, ils amènent le, les journalistes. Ils n'ont pas besoin d'amener. Voilà. Ils vont amener les journalistes. Et ils pourront faire leur. leur euh,

au, au Sono. Et ces gens-là pourront faire les travaux d'interprète, de, traduction entre la langue qui va être parlée. en plus, Bon, quand même, c'est la réglementation FIFA qui les gâte aussi. C'est la FIFA, qui, en termes d'orientation presse, a, a, a donné euh, beaucoup d'exigence. Parce que déjà, la FIFA dit qu'il faudra minimum prévoir une tribune presse de 600 places. Nous, on en est à à ce que ces gens-là, ils aient entrée dédiée. Depuis cette entrée dédiée, ils vont avoir des ascenseurs qui leur permettent maintenant d'aller vers les espaces. Et comme pouvez voir notre conception, c'est comme ça que ça a été On a l'entrée presse qui est là. Il va y avoir des tourniquets par rapport au système d'accréditation. Tu es journaliste, journaliste. Si tu Et tu as, via euh, la tribune presse. Maintenant, la spécificité également qu'il faut acheter dans cette salle de conférence de presse, vous voyez le faux plafond, il est complètement perforé. Elle va être traitée du point de vue phonique, du point de vue acoustique, de manière qu'il n'y aura pas d'écho dans cet espace. Il faudra, rajouter également par rapport à la presse qu'il y a 40 qui sont réservés aux commentateurs.

Donc pour un souci de rentabilité, on a réfléchi à un concept qui permet, en plus des loges qu'on a au niveau supérieur, d'avoir un VIP lounge. Parce que maintenant, dans les, dans les, dans les euh, contrats d'exploitation ou les méthodologies d'exploitation, les gens ont cette préférence-là de louer les à des, à Et donc ceux qui seront peut VIP et qui n'ont pas cette possibilité via une entreprise d'avoir une place au niveau des loges, ils ont la possibilité d'avoir des de ce VIP lounge

capable d'assurer le service pour plus Sénégal mais fier nga it am président de la république boo xamante ne lépp lu gën ci àdduna bi daf ko yéene Sénégal ñuy gërëm bu baax nag la directeur général galo Ba ak équipe yi mu àndal yëpp ci taxawaay bi nga xamante ne am nañu ko ànd ci ak directeur des infrastructures ministère des sports ñuy liggéey pour accompagner li nga xamante mooy entreprise bi ba tey ñu yegg si fii te tey ku fi ñëw xam ne bu ñu la nee 22 février dinañ jot caabi war nga ko gëm liggéey bi avancé na li ëpp solo def nañ ko egg nañ ci 80 pour cent wala lu ko ëpp ci wàllu liggéey kon tey mën nañoo ne ci wàllu gazon dinañu am lu ñu mosta am mooy gazon bu jaxasoog gazon artificiel ak gazon naturel loolu nga xamante ne mooy li gën a baax ci àdduna bi waaye it li ñuy magnifier mooy lii nga xamante ne mooy stade bi architecte principal bi mooy le président Macky Sall parce que moom moo décidé ne du am piste d'athlétisme dañuy yóbbu piste bi ci biti tey ku taxaw fii amul lenn looy envier ci benn réew stade bu mel nii kon réew dëgg-dëgg boo koy dénk it da nga koy dénk ku am ambition pour réew te loolu la président Macky Sall wone fii moo tax ñu ngi koy gërëm ci monde sportif yëpp di ko gërëm waaye boo xoolee salle yi fi nekk capacité bi mu am VIP salle de presse surtout yéen nga xamante ni coono ngeen doon daj pour dem ci stade yi di taxaw di wër ay image di wër ay information ñu jël condition yi gën ci àdduna bi defal leen ko ci stade du Sénégal loolu ñun ñi xam li ngeen di daj bég nañu ci te jàpp nañu ne ñëpp dinañ ci jàpp pour que effectivement Sénégal di gën a jëm kanam ci wàllu tàggat yaram leneen li ñu mën a waxit moom mooy tey boo ñëwee ci vestiaire yi wala nga ñëw ci musée Pape Bouba Diop bi nga xam ne c'est du lourd moom moo nekk fii du ay ñab-ñabal du ay affaire yoo xamante ni mas nañu ko gis kon muy yéen muy man ñi nga xamante wër nañu réew mi wër àdduna bi gis stade yi am tey war nañoo mën a yëkkati suñu loxo xam ne li ñu am war boo wëree affaire sax doo gis Augustin Senghor a ngi nii moom laa doon xool léegi ci xarkanam bi ñu duggee ci vestiaire yi bi ñuy dugg ci biir stade bi boo ko gisee di nga xam ne kii am na lu ne woon ci xolam mu bëgg ko lool te gis na ko kon jàpp nañu ne fii ñu nekk le 22 février bu ñu paree li ñuy def war nañoo anticiper ak fédération ba nga xamante ne CAF wala FIFA dina ñëw inspecter li nga xamante ne mooy stade bi ba mois de mars bu Sénégal di football footballé ko fii loolu nag day fekk si réew yu mag yi nga ne soxla ñëw noonu dajeeg Sénégal ci match amical loolu nag duñ ci waxagum benn tur waaye bu jotee fédération bi nga xamante ne moom la ñu dénk équipe nationale bi dina ci àddu ba xam ban lañ ci jël su ko defee ñu mën a feetewaat ak euh, le peuple sénégalais. leneen li nga xamante ne mën nañ ko wax aussi moom mooy fii daf dul nekk rek fu ñu footballé wala fu ñu tàggate yaram dafa nekk foo xamante ne nit dina fi mën a daje réception dana fi mën a am nit dina fi mën a ànd ak sa njaboot passer fi la journée jaar ci musée yi visiter li fi nekk kon lieu de vie lay nekk loolu nag day wane ne nañ daan yore stade yi mënatuñ ko yore lu mel nii nga xam ne mooy stade du Dakar Arena arène nationale loolu yëpp ci liggéey la ñu ne liggéey kenn du ko yàkkamti da fexe ba am lu baax mooy nañ fexe ba privé yi jël li nga xamante ne moom lañ moom ci infrastructure sportive bi loolooy tax koppar mën a dugg loolooy tax ñu gën a mën a téye li nga xamante ne mooy infrastructure sportive SOGIP déjà commencé na di ci def lu rëy ci Dakar Arena loolu yëpp xam-xam yooyu yëpp bu ñu ko boolee defe naa ne du ñu am benn jafe-jafe ci yor lii nga xamante ne moom mooy arrêt euh, stade Sénégal stade du Sénégal it am na loo xamante ne lu am solo la mooy environnement bi respecté nañu ko am na solaire mais am na it station boo xamante ne dafay togg ndox mi ndox mu ñuy utiliser defaraat ko ba mu mën ko utiliser waat fii nga xamante ne mooy ci gazon bi loolu dàq na yàq ndox mais dafay jël di yaxanal mais aussi dafay nekk loo xamante énergie propre day am fii ci ci li nga xamante ne moom mooy stade du Sénégal kon lii nga xam moom moo nekk fii ci Dakar Arena suñu ko booleek li nga xamante ne mooy stade du Lat euh, Lat Dior parce que dañu war a améliorer éclairage sportif continuer liggéey bañ fa daan dem defaraat li nga xamante ne mooy stade Léopold Senghor loolu it dama ciy wax ne entreprise bi commencé nañoo ñëw am nañu fu ñu jot a nekk donc démarrage bi yàggatul te bu ñuy defar sengor dina ñu defaraale euh, Elimanel Fall bu Diourbel dinañu defaraale Lamine Gueye bu Kaolack defaraale Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor loolu nag boo ko boolee ak stade Malick Babacar Seye suñu ci defee li ñu war a def la ñu président dénkoon bi ñuy teg xeer bu njëkk bi mooy fédération ak ministère des sports liggéey leen pour ñu jëm ci organisation coupe d'Afrique loolu suñu ko boolee war nañoo mun a taxaw nag tugal suñu candidature pour organiser li nga xamante ne mooy coupe d'Afrique des nations loolu nag ci Afrique coupe d'Afrique boo paree mun naa dal si sa kaw saa su ne parce que réew yi dinañuy jël te duñu pare ñu koy jël di ko joxewaat ñun nag dañuy bañ a laaj ba pare di defar dañu bëgg a pare ba pare laaj donc d'ici 2023 bu ñu ci jógee defe naa ne bu ñu évaluer war nañoo xam ne war nañu mat pour mën a laaj li nga xamante mooy Coupe d'Afrique des Nations. na ko laaj en sachant mën a def pour dama ne li ñu war a def mooy comme février ñu jox caabi yi cela veut dire que bi dana pare kon war nañoo bind ñi nga xamante ñooy saytu. stade yi pour que ñu ñëw avant février wala ñu ñëw tout juste après l'inauguration su ko defee bu ñu ko inauguré mois de mars su équipe nationale de football war nañoo mën a ñëw footballé ko fii loolu laa wax loolu moom defe naa ne wax ju wax ju wax ju la xam nga nag ñun ba ñu commencé match euh, qualification yi lañ commencé organiser ba Cameroun dem nañ fa demat fa suba sax dina am délégation bu ñu fa yónni waa fédération ak waa ministère le DAGE du ministère, le directeur de cabinet, le directeur de la haute compétition, la, les vice-présidents de la fédération, l'ANPS, ñëpp dinañu dem fekki ambassadeur u Sénégal ca Cameroun pour que disposition yi ñu war a jël ñu jël ko ànd ak ñëpp li nga xamante ne bu ñu ci paree dinañ ko wax réew mi wane état bi ni mu taxawee wane fédération ni mu taxawee parce que nag defuñu lu bees lii du suñu première participation maîtriser nañ compétition internationale yi ci wàllu mobilisation des moyens mais mobilisation des conditions mais it maîtriser nañ ko ci wàllu administration kon li des mooy dérouler ba nga xam balaa compétition bi commencé Sénégal am toutes les conditions possibles pour aborder li nga xamante mooy compétition boobu. merci